dal fanam ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon noo ñaan taalibe yëpp ñu daal di toog lu déglu ko bu daanelee kàddoom rek waa diwaan baa ngi nii ci ñoom lañuy ñuy ñëw euh, door ñëw nag sëriñ ak saa dugg si na bisimilah. jërëjëf jërëjëf Serigne Euh, mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyoo di jot li nuyoo di jot nuyoo ak ñaanu sëriñ bi Cheikh Muhammadul Muntaqa شيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البشير ابن الشيخ الخديم di suñu sëriñ di suñu yaakaar di suñu jëwriñ ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi mi ngi leen di nuyu di leen sargal ci yi weesu yépp ñu génn ak bésu tey bii li ñu génn mooy suñu bés bu màgg bi bu rëy bi di màggaluk Tuubaa gi nga xam ni sëriñ bi Cheikhul Xadim moo ñu ni woon bu dellu séetee nañ ko ci santale yàlla mu jàll weesu ci weer yi ñu génn yàlla def tey ñuy màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy guddig ki gënal ki ñu gënal ki ñu gënal mooy Sëriñ Tuubaa ki ko gënal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi leen ci siyaare bu baax di leen ndokkale tey rafetlu taxawaay bi ak teewaay bi ci li ñu génn muy màggal gi nga xam ni mu ngi doog a ab ñaar fukki fan rekk ñetti ayu bés nga xam ni nii nga xam ni kii nga xam ni mooy suñu yaakaar di Serigne Touba nii mbiram yépp ànde mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa mooy wone rekk ñaari bés yu màgg yi muy màggal gi ñu génn ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar ak bésu tey bii nga xam ni tey la fukki fan ak ñaar ci weer wii nga xam ni ki gënal ki ñu gënal ci la ñëw àddina mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu siyaare jullit yépp nag ñiñ ko bokkal muy julliti réew mi ak fu jullit mën na ne ci àddina bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di siyaare di la ñaanal wér ak man ak tal ba ñu fekkee ko ay déwén yu baree baree bare te lépp luñ ci def ngir jaamu suñu boroom yàlla nungul ñu ko gàmmoo bu fekkee noon am na lu dagan mooy li gën a dagan bon ci jullit ndax ki tax ñu bind la te ñépp gëm nañu ni yonent bi moo tax sallallahu alayhi wa ñu binduñu te ki ñu bind ku ne am nga ñetti bés bés bi nga ganee àddina bés bi nga fiy jógee ak bi ngay teew ci sa kanamu boroom mu mel ni kon bésu ki nga tax ñu binduñu bu amut woon kon du ñu am te yàllaa ngi màggal lu wér ci alxuraan ñu xam ne am na genn guddi goo xam ne mi ngi nekk ci genn weer muy weeru koor ñu koy tudde laylatul xadar mu ni guddi gu yàlla ni guddi gu ma màggal comme nak yonenti be tax lo wara am am ñu magal gudi waaw ki tax loola lepp am ware su ko magal ah sëñ Moustapha yéen borom xam-xam yi kon loolu mo tax bu fekke ni bi dañ ko doon wutal lay man nañ ko laye sax ca loola waaye wutaluñ ko lay dañ koy magal gëm ko ku mu neex nag bañ a màggal guddig yonent bi boo ko gëmul ndax kat ñun dañoo am njiit am lumière am lu ñuy won am ku ne ci suñu kanam muy Cheikhul Khadim te moom moo ko gënal ki ñu gënal sëriñ bi xam nga ñun moo ñu gënal sëriñ bi sëriñ bi it kookoo ko gënal mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lum luñ ci tegtal rekk dinañ ko tegtaloo muy bés boo xam ni fépp foo xam ni moomale nañ ko sëriñ Tuubaa ak jullit yi gindiku ñoo ngi màggal bés bi muy nag loo xam ne lii lu war la ci jullit bépp ñuy ñaan yàlla guddi gi nga xam ni mooy guddeem lépp lu ci waay def ngir sargale ko yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla na ko yàlla nungu ñuy ñaanal sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi wéral ko naalam yii nga xam ni daf ko naalal sëriñ bi yàlla na ko egge ci sagoom ak manam ak kattanam yàlla na ko yeggale te ñu ànd ak moom xam naa ni tey wax dina xaw a jafe ndax ca bëccëg ba léegi daanaka jàppoon nañu ni lii ñu mën nii sax duñ ko man waaye nag mbaaxug sëriñ bi tax na suñu mbokk taalibe yi nga xam ni ñoo fi dajaloo ci pàkkub sëriñ tubaab bii mëneesula ñàkk saafonteeg ñoom gërëm leen sant leen ñaan yàlla lii nga xam ni fekke nañ ko ren fekke ko daaw yàlla nañ ko fekkee at yu baree baree baree baree bare sëñ Moustapha Diatara mii rekk doyoon na ci waxtaan wi ndax li mu fa wax mat na yóbbal ba déwén sëñ taxa Guèye mii tamit lii mu fi wax ak ñu baax ñii nga xam ni jàng nañ fi liñ fi jàng ca muy ay matxu yoo xam ni buñ ko seetantalee teewlu ko mat na nafar ba déwén ndax day yekk goo xam ni regg nañ ci reggaay boo xam ni xiif fii ba déwén mënatu fee mënatu cee jaar ndaxte lii fi suñu mbokk taalibe yi jàng ni ko sëñ Moustapha Diatara waxe bu ñu déggoon arab nii ñu déggee wolof ñu waxe ko nii ci arab ni ñu waxe ko noonu ci wolof kon jàpp naa ni tànt bii lépp balaa bët set lépp egg suuf ka ko wax nag moo tudd Serigne Touba mooy cheikhul xadim mooy cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasul Serigne Touba nii nga xame ni suñu mbokk mu baax mi sëñ Muntaxa Géey nga xam ni junj na ko ba munu koo junj képp ko yàlla baaxee dara nga am lenn loo xam ne lii di nga ci mën a niitu la nga mën cee xàmmeeku di nga xam ni kii ñu yàlla booleel ku mel noonu nii mu ko waxe mosu fee ñëw te looloo am ma seet su la gis ku mel ni moom lees ci mën a jotale nit du dara lu dul tawféex rek tawféexu suñu boroom ndimbalu yàlla moo tax ñu mën a xam sëriñ bi walla ñu mën a am dara ci sëriñ bi ndaxte sëriñ bi day moom day koo xam ni kenn xamul ku mu doon loolu nag day jafe wax sant ci bëccëg rek doon nañ ci waxtaan ba daanaka mu indil ma coono yu bare bare bare bare moo tax bëggatuma dugg foofu ndax dama jàppoon sax ni dinañ def waxtaan wu yaatu ndax mënut a la ñàkk ndax àddina fokk ñuy laa biirante laabérante mënut a ñàkk ci ay doomu aadama yoo xam ni yàlla da leen bind ba pare boole leen ñoom ñépp am lu mu leen digal boole ñoon ñoom ñépp am fu mu leen dugal ñun yàlla def ñu bokk ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni diine l'islam moy suñu diine te diine l'islam bobu nga xamni moy suñu diine dafa am lo xamni luñ ñu ci digal lo xamni daf ñu ci war ñu war ko def am ñu ko xam am ñu ko xamut ñi ko xam wara a laabiire ñi ko xamut moo tax bu ñu dajaloo lépp lu waay xam te mu mën a jariñ sa mbokkum jullit nang ko ko laabire bu déggee moo xam bu déggut moo xam waaye laabiralante mënula ñàkk rawatina nag ñun ñi nga xam ni sëriñ Tuubaa lañu ñu yaakaar moo ñuy digal ci suñuy mbir ci moom la aju moo tax di weccanto ay xalaat di laabirante mënut a ñàkk bu ñuy laabirante nag di ko def ci sëriñ bi ci li ñu bokk muy mbaaxuk sëriñ Tuubaa gi mënees naa jàpp ni ku ci bokkut walla ku amut ndimmal loolu nit ñi di wax raggantey ginnaaw moom la ñuy def te fekk na ni demul noonu dafa am ñu xam am ñu xamul te xam du ñéppay xam ndaxte xam cër la yàllaa koy joxe du ñéppay xam xam cëru suñu borom la yàlla moo koy joxe ki xam nag te am mbokkam moo xam ni bëgg na ko laabire ci la mu xam waxtaan du mën a ñàkk ak dimbalante waaye sëriñ bi kenn wutalu ko loo xam ne li amu ko wala mënu ko wala newut fi moom sëriñ Touba fi ko nit ñi foog ak fiñ ko teg li ñu yaakaar ni moom lañuy ñuy juger doomu aadama ni moom nekkul foofu boo ko waxee ñu ni déglul dof boobuy wax wala ñu ni déggal jaayil boobuy wax wala ñu ni déggal kooku mën a wax sirk boobuy wax te du déedéet laaj ko danga koy laaj lii mu wax fu mu ko teg ndax weddi munta ñàkk waaye weddi du caaginu weddi mbir boo ko jëlee fii teg ko fee da wut loo teg fii ba ñu xam ne li nga teggi fii teg ko fee lii nga ko wuutal mat na ko waaye waroo weddi wala nga wax loo xam ne li yow xamoo ci amoo ci xam-xam ma bëgg dimbali suñu mbokk jullit yi rawatina nag ñii dëkk ci réew mi li ma leen di dimbalee mooy sëriñ bi léebul defulit li nit ñiy wax tradition orale maanaam xam-xam bu ñuy joxalante ci gémmiñ te amul mbind ñu bari dañuy tudde seen bopp boroom xam-xam moom la tubaab di wax intellectuel

war nga koo gëstu ba xam ko rawatina ñun ñu dëkk ci réew mi dañu war a jàng sëriñ Tuuba boo gisee coow li bari wax ji bari dañu jàngul sëriñ Tuuba dañu war a jàng sëriñ Tuuba ndaxte nit lu yoonam ne lu ne war na koo gëstu ba jàng ko ba xam ko du tax sax nag ñu xam ko ndax sëriñ bi jàng taxut nga xam ko kon problème amna? na waaye ndimbal am na ci loolu li mu bind ci loxol boppam moom sëriñ bi dafa bëgg ñu jàng ko dafa bëgg ñu jàng ko bu ñu ko jàngee bu fekkee ni suñu xam-xam egg na ci ñu xam li mu bind lu mu ñu xam ko bu ci eggut ñu wut ko xam-xamam àgg ci xam li sëriñ bi wax mu dimmili la ci te jafane xam léppi sëriñ bi ndax tradition traduction maanaam firi mbir mën naa jub mën naa bañ a jub yàlla moo ñu ko jàngal moo ñu ko wax alxuraan ji boo demoon ba ginnaaw màkk fekk fa kàng fóore wala nga fekk fa salma siita jox ko alxuraan bi ni ko firil ma ko dem ba ca geneen gox fekk ko ku mel ni moom ci xam-xam ni ko firil ma ko déggin wi mën naa bañ a doon benn te kenn benn téere la kenn ko wax muy yàlla mbindum sëriñ bi nañ ko attee foofu ndax fa lii toxoo fa la mbindam la toxoo waxuma ko moo ko bindal boppam bari na téere yu ñuy jënd muy xasida yi ñu di ko traduire en français wala ci yeneeni langue nga gis koo xam ne màcc na ci euh, euh, euh, jàng ba am ay ay xam-xam ci maanaam littérature nga jox ko ko ni ko traduiral ma ko mu traduire la baat ya na mu ko déggee walla na mu ko déggee ci littérature waaye boo demee mbakke Bawol gee walla nga dem Daaru Musti walla nga dem Njaaréem jox ko keneen mu traduire la ko dina ko la ko traduire leneen xam nga nu mu koy defe la mooy wax da koo dund li téere bi wax def koo dund kee la téere bi wax dund ko ndax lang arab booy seet ñi ko gënoon a jekku duñu woon ay jullit boo demoon léegi ci église yi libane yi wala nga dem ci copte égyptien yi seen mees ci arab lañ koy waxe arab yu set wicc lañ koy jànge boo jàngut da ngay jàpp ni alxuraan sax la ñuy wax ndaxte alxuraan arab lañ ko bind waaw kooku boo ko bëggee firéeloo téereb yàlla bi alxuraan te du jullit nekkul ci environnement jullit nu mu la koy tekkee Sëriñ Tuubaa fi mu ne la nit ñi nekkut xam nga boo waxee dañuy wax ni da ngay jaawale walla ngay jaxase walla ngay fenqale demewul noonu lii nit ñi miin nañ ko gën yàlla moo koy des te du caaginu ñépp baax yàlla suñu boroom tegtal na yonent bi yonent bu mag ni ko toppal ngiram muy yont yàlla ibrahima te teewul yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy patron yont yàlla ibrahima mooy kilifaam ndax mooy xaatimu nabiyin wa imaamul mursalin loolu moo lay won tegtal ni yàlla mooy def lu ko soob nii sëriñ bi mel yàlla la soob la mu doon ci yàlla yàlla moo ko xam ak sëriñ Tuuba ëpp nañu ndax lii may wax du yett samaw làmmiñ di ko bëgg a wax sëriñ Tuubaa bindal boppam yàlla ko seppi ci nit ñi kii nga xam ni nag dañu jàpp ni ñu nag moo ma bokk mu bind ni yàlla nungul na ma nungul na ma juróom ñaar fukki junniy at ñu doog a tëm maam aadama suñu maam aadama nga xam ni mooy maamu ñépp nag ni yàlla nungul dama juróom-ñaar fukki junni at soixante-dix mille ans nee na ñu doog a bind aadama xanaa lu nit gàtt gàtt gàtt xam-xam ni xam nga ni kon kii nekkoon na te maam aadama nekkut waa loolu dafa te yàlla gàtt xam-xam mi ngi toll ci ni nga defe ni bu aadama amul woon yont yàlla Muhammad du am gàtt xam-xam mi ngi toll ci ni nga jàpp ni bu a bu bu aadama amuloon yoon ci yàlla Muhammad doo am dañu ni mooy maamam dëgg la mooy maamam ba mu ñëwee ci jëmmi nit doon nit waaye yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu bind maam aadama kon nekkuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu nekkuk maam aadama waaw nekkuk Sëriñ Tuubaa mënu la jiitu nekkuk maam aadama moom nag sax mu bindal ko boppam faf ni yàlla wuyu na ma yàlla nungul na ma juróom ñaar fukki junniy at ñu doog a bind aadama waa kooku dinga xam lu mu xamut wala nga man lu mu munut wala nga def lu mu defut bu fekkee ni ay jullit lañu nañuy sagu nañuy bég nañuy kontaan ci xéewal gi yàlla defal ñu fii ci réew mi ñu tudd sénégalais Serigne Touba di sénégalais Serigne Touba di senegale waa Màkka ñoo ngay bég di sagu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni ci ñépp waaye saoudien la ma nga tëdd arabi saoudite ma nga Madina ku ko bëgg a siyaare da ngay jënd ab avion dem ci ambassade bi boo amul visa boo nee jullit laa rek dama ko bëgg a siyaare boo demul ci seen ambassade Arabie saoudite doo fa dugg dañ lay may visa kon lan la si yonent bi saoudien la yonent bi saudien la Arabie saoudite la dëkk njéem booba sax tuddagul arabi saoudite waaye ñu ni kon arabul nu mu tal ardul arabiya la dawlatul dawlatul arabiya ijaasi ñoom ñoom ñoo bokk Sénégal yi tuddul woon bu njëkk senegal bi kenn xamuloon nu mu tudd yonent bi bon xanaa kon moom saudien la waa Arabie Saoudite yi ci sagu te nag ñu baax a nga fa dawlatul arabiya boobu ñi fa dëkkoon bari na yonent yu bari fa lañ dëkkoon li ko tàmbalee dans Sinaï ba ba ngay dem Palestine ba ba ngay dem siri dem Irak foofu moo doon dawlatul arabiya bi nga xam ni ñu baax ñépp fa la ñu fe la ñu fekk baax yonent bi feeñ foofu mu doon soñ sag sëriñ Tuubaa fekk fa tamit ñu baax ñaata yonent a feeñ foofu yont yàlla Ismayla mën nañoo jàpp ni tamit sawjee la ndax ma nga ñu denc ca biir Kaaba ga waajuram yont yàlla Ibrahima moo ko indi ba foofu tey ji bu dekki woon fu muy dekki Arabie Saoudite lay dekkee ba pare am di carte te Arabie Saoudite taxawul nag suuf soosu ñàkk ku baax ndax yonent yëpp foofu lañu ñu feeñ Sëriñ Tuubaa ñëw feeñ fii bi mu fi feeñee ñàkkul ñu baax ñu baax lool am na ñoo xam ne bi fi sëriñ bi nekkee nee na ñooñu xutbu rabbaaniye lañu sëñ kokki bi mu fi jógee takk na ndombo xutbaaniye gi Mamour Anta Sali takk na ko ndongo yi sëriñ bi takk nañu loolu kon sëriñ bi weesu na foofu waaye kon xanaa loolu ñu xam ne sëriñ bi sagum réew mi la sagu sénégalais la c'est un sénégalais booy la yàlla baaxee ba nga am sénégalais buy wax ni man yàlla nungul na ma soixante-dix mille ans avant muy bind maam aadama mi nga xam ni yow mii wóor la ni bu aadama amul woon doo am waaye sëñ Tuubaa moom bu aadama amul woon bi ñuy def aadama fi la ko fekk xanaa nga sagu ci nga sagu ci loolu loolu loolu iñaane sa bopp jar na ni ba ngay wax nañ xooli téereeg nañ xooli mbind meeg nañ xooli sëñ Tuubaa bindul sëñ Touba moom li mu jàpp ni mooy bind sëriñ Touba bindul sëriñ Touba ay décret la lu yàlla décrété la xalimaam du juum nee na dinañ ko yettal xalima soosal ko daa yàllaa koy wax uktub bindal mu ni ko lu muy bind mu joxoñ ko jëmmam ji ni ko bindal ci man nee na may bind di bind ba mu ni ma taxawal xiif ma taxaw mu joxoñ ma yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ne ci moom ba si yàgg mu ni ma taxawal ma taxaw mu joxoñ ma sama jëmm ni ma waxal ci yow waxal li ma la defal te nee na loo ci noppi mu tudd goree di te mën goree di wu ma kooku xalimaam du juum billahi lazi la ilaha illa huwa dafa am loo xam ne nag mënee su cee yegg ndax euh, day dem ba am yu mu indi waaye ñun war nañoo sant yàlla sant yàlla gi ñu war a sant mooy yàlla baaxe ñu ñu am tawféex ju toll ni yàlla baaxe ñu kim ñu baaxe muy sëriñ Tuba loolu nag ku ko yàlla defal war nga sant xam ni àddina yàgg naa am ñu baax waaye dafa am loo xam ni yàlla moo ko fi indi kenn mënu ci dara sàkk na yonent yu baree baree baree bare bare am na yu ñu xamul xamuñu ni ay yonent lañu xamuñu sax fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu feeñee waaye nee nañu rek ay téeméeri junni lañu ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yonent waaye alxuraan bi ñu gëm ñun ñépp ñu tënku ci moo ñu waxal ñi nga xam ni ñiy tudd seeni tur ci alxuraan ñaar fukki yonent ak juróom seppi ci juróom yoo xam ni ay ulul asmi lañu yonent bi di seen patron kon hiérarchie yàgg na ci àddina yonent yooyu nag lii ma doon wax ci bëccëg ba mu bëgg maa yóbbe ayib dinaa ci cof tuuti te bu ma bëggee dem rek am ku ma xëcc Sëriñ Touba dafa am une mission particulière lii lépp rek ci ndimbali la xam naa dina ni dinaa am ñoo xam ne dañuy wax ni waxi dof la wax

bo xamni ni ak li xew nga xamni nit day jaamu yalla sàmm baax lol ba yalla ubbil ko buntu niko wotel xec nit ñi ci yalla ñu am fu ñu yem dans le temps et dans l'espace Sëriñ Tuubaa dafa ñew ngir soppi jamono te gis nga ñun ñii fekk téeméeri at dootuñu fi ne ña fekke woon ba muy wax loolu kenn nekkatu fi bërki démb lañ ko doon màggal fii téeméeri at yi ñooñu nga xam ni amuñu woon tawféex mooy ñi nga xam ni moom la sëriñ mun Muntaxa di wax ñi ko gëm am tawféex ñi ko gëmul maandu ci moom ak ñi nga xam ni dañ ko weddi alku waaye ña ko wekki weddi woon bu ñu fekkee woon jamono ji ñëw ci tànt bii rek doy na wëlbati gis barabam bi doy na sëkk jarul dem Touba ndax la mu leen waxoon lépp lépp lépp lépp loola sax weesu nañ ko bañ ba ñoo nga ca leneen feeg téeméeri at yi ñëw nag ci kanam du ñu fi fekk ñun ñuni waaye dina fekk sëriñ Touba fépp foo dégg ni ñoo ngi fay wax ashadu an la ilaha illa allah mbirum sëriñ Touba fay dox sëriñ bi dafa ñëw ngir soppi jamono dafa ñëw ngir jagal jamono ndax jamono dafa yàgg yàgg yàqu yàgg nu mu tëddi sëriñ bi weesu na ñëw fii Mbàkke Touba defar ay murit mu jeex ñu dem ba yowmal xiyaam weesu na loolu xool leen ci ni muy ñaanee xam nga lu ko ñor nit ñépp jami hal wara lay wax ya malik al mulk ya man jàlla an qawadin irham jami al wara Serigne Touba du communauté mais humanité lay wax Serigne Touba humanité humanité moy ñun ñépp ñi yàlla bind loolu la sëriñ Touba bëgg a defar ba nga xam ni suñu tawféex la yàlla nañ ko xam yàlla nañ ko yëg yàlla nañ ko murloo xam naa ni foofu lay wàcce kàddu gi ndax mel na ni jàngkat yi ñëw nañu te bëgg nañu guddi gi bi ngi bëgg a gàtt waaye daal liñ leen di xamal mooy ñun taalibey sëriñ Tuubaa yi bu ñu am dara lu ñu naqari sëriñ Tuubaa kenn mënu koo yàqal dara àddina bi yépp bu maasee woon bëgg yàq liggéeyub sëriñ Tuubaa bi duñ ci mën dara bu àddina bi yépp boole woon bëgg koo defal loo xam ne luy jubluwu ko du ci duñ ci mën dara sëriñ Tuubaa ragalul noon yaakaarul ab xarit moo tax ma bëgg yii xew di yëngatu yëngatuy jamono nañ xam ni jamono yi jamono yi Sëriñ Tuuba la loo leen fi gis cib yëngu muy yëngu boo xam ne bii yëngub àddina la nañ ci ni tekk xam ni mbiru Sëriñ Tuuba nekk ci biir ak nu mu mën a ñëwee ndaxte sëriñ bi moom la yàlla jox àddina moom la jox alaxira àddina jii ñu ne nag réew mii ñu ne moo ci gën a tuuti bariwul superficie bariwul population te àddina la yàlla la sëñ Tuubaa tax àddina ñëw ñu bàyyi ba nodd